ci alxames ji yemook ñaar fan ak juróom ci weeru avril atum 2024 ci la maire bu commune bu bel joxe lenn ci ay kër fii ci Pikine nekk ci quartier Cheikh Anta kër yu nu borne ba pare ànd ak seeni kayit yu leer nañ ngir seeni borom mën caa def lu leen sopp donc lotissement Pikine la démarré nañ ko nag depuis daaw yàgg na nag ñoom ñu dëkk fi ndax fii ñu fi dëkk presque ñi ci bari ëpp na ay fukki at ñu dëkk fi ci condition yi metti mais kon démarré nañ ko boo gisee mu yeex

mais yooyu yëpp fexe nañ ba am ni ñu ci dogale génnante ba kenn ñu gaa yi gis seen bopp mais en tout cas daal suñu objectif mooy fépp fu ni dëkk ci dëkkin bu jaaru yoon dëkkin maa dëkk nga vingt cinq ans vingt ans ban am naa yéen a recaser ko defaraat kër yi joxaat leen ay kër ñu dëkk ci yoon ndax njaaram yëpp ni ñi day ñëw doon dëkk ñu leen may mais ci façon bi doon dëkkee dafa métti da ngeen ko gis nii te loolu mooy sama bokk na sama bilan fu laay mu fay jógee plus de deux mille ou mille kër ñu defaraat leen ñëpp ñu delluwaat seen kër ñu teg ko ci dëgg ak ci jub ak doyloo suñu borom. mais li doon wax ju tey daal mooy ñëw nañu joxewuñu terrain ci mairie ba joxuñu ko ci nekk ci penc mi lañ ko joxe kon loolu mooy wane transparence am na képp ku nga xam ne am na la nga xam ne dérangé na la commission baa ngi balaa ñoo jëm nañ ko noté luñ ci mën a corriger ñu corriger ko. ku dëkk fi naan du am ku war a am dëkk fi dina am par force te loolu mooy dëkk te loolu la ñuy doxal nag. Guèye Dione délégué suuf quartier Pikine rafetlu na lu ni mel rawatina ni maire bi doxalee mooy sëdd njëkk ña fekk baax ca gox ba balay ñeneen di ci jot. kër dafa metti te fii xam naa li fi nekk am na ñoo xam ne ba ñu ñëwee fii boo compté at yi war naa mot fukki at te lotissement bi deux mille vingt et lañ commencé lotissement bi ci lañ commencé recensé ci baaxu njaay mi Modou Ndiaye mi ak waa Kadas ak waa impôt et domaine ak waa urbanisme ak waa mairie fekk nañ fi ñu bëri. ah la ñu waroon a def it ñoom def nañ ko parce que dañoo ñëwoon di bint ma ne leen képp ngeen fekk mu taaj paan toog fi ay jaboot ak njabootam jox leen ko kër kër la boobu. bindoon nañ leen mais ba léegi am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla jotuñu seen kër te ñu ngi fi ba léegi ba am na ñoo xam ne dañ leen attribué si seen kër ñu bokk kër ga bokk nekk suñ duggee ci biir nañ gis yu mel noonu loolu la Malick di réglé nag. suñ koy régler nag am na ñoo xam ne ku nit di defar day mel ni day yàq fekk na defar la ci jublu li mu wax man dama koy dëggal am na ñoo xam ne fii la sosoo def seeni i néeg def seeni i saket saket fi mu ne nii benn sayu kii rek 400 lay jar sayu gi tax boo ci defee lu war a arrondir kër xaalis bu bari la nga def ko ay at yi at keneen ñëw jóge foo xam ne vraiment doomu aadama la Jurbel la dëkk mais mën naa am sax du dekk ci commune Diourbel ñëw jël sa place lolu def rafetut. kenn ci bénéficiaire momi moom rafetlu na lu ni mel ak liggéey bi ni mu doxé ba yex ci fi dalé ko ci recensement ba jaax ci bornage bi ba ci attribution terrain ba tay ñu wara jot seen kayitu kër. Euh, recensement bi nak comme ni ñuy ci lima ci xam man tambali nañ ko ci norme yi nga xam ne moom nañ ko wara tambalé puisque service technique yi ñëw nañ fi def recensement bi delu ci fi borné ko delu ci fi def attribution yi. ñu rafetlu trop.

problème yi tuuti la rek gis nga fi mu ne nii bu ngeen duggee nii dafa am ñoo xam ne recensé wu mais amuñu ñu ngi fi loolu cas boobu souligné nga ko am ñoo xam ne ñu nga fa dëkk mais dañ ko jox yeneen i tur ñooñu nag du yéen du yéen man xam naa mais nag di wax naan lii ak lii yëpp jaru ko yow di nga teg lu dugg seen nopp di ngeen ko teg ci yoon. Babacar Sall doon ci jokkoo yéen fii ci Pikine quartier Cheikh Anta Mbacké pour Moubarak TV.